la nation. il est là pour tout le monde. le père de la nation discours am loolu la war a nekk ci sa nation. say doom yu nekk ci ay ay ay jaaxle. mais bàyyiwu leen ko bàyyiwu le Sénégal à sa représentation diplomatique à Pékin lépp lu ci war mu ngi koy def. et je pense que le ministère des affaires étrangères est en contact avec les familles. Mhm. dafa fekk ne état lépp lu muy def du lépp la mën a sàmm ci mbedd mi di ko wax. mais président Macky Sall bu ñoon kenn du am difficulté fa mu nekk. Mhm. rawatina koo xam ne da nga dem jàngi wuti xam-xam. Mhm. nañ leen ñaanal yàlla sunu borom yàlla aar leen. loolooy wax ji. waaw ci leneen itam euh, mu aju ci wàllu cour des comptes. Mhm. Euh, dañu jot rapport yi d'abord rapport yi yéex. Euh, depuis 2014 amul benn rapport boo xam ne cour des comptes publié na ko. loolu nekkoon lu jaaxal ñu bari. Hmm. Euh, te bonne gouvernance nekkoon ci li nga xam ni itam ay ay yéene président de la république woon la woon pour que mu mu doxale ko hmm. euh, yéexaay boobu nga xam ni yéex na euh, ci cour des comptes ak bi mu génnee itam ñi nga xam ni yëpp ay kilifa ñu bari ñu épinglé leen ci président jàpp ni commission moom moo koy réglé ba mu wax ko ndax jàpp nga ni loolu moom mooy transparence ndax jàpp nga ni itam loolu mooy bonne gouvernance ndax loolu jàpp nga ni mooy je ne protégerai personne hmm. comme na mu ko waxee woon Pape xam nga euh, à chaque fois situation bu amee euh, coow li day bëri et malheureusement ñi nga xam ne ñoom ñooy am vrai information yi xëy na du ñuy mën a taxaw fépp wax ak ñëpp mais ñëpp xam nañ ne que wala ñu bëri wala ku nekk euh, ci ci ci liggéey Cour des comptes ngay magistrat wala jege corps bi sax war nga mën a xam ne que c'est pas parce que gis nañu rapport rek que dañu incriminer ay nit parce que côté boobu dama ci bëgg a taxaw tey bu Cour de comptes joxee rapport am na niveau de sanction yi nga xamante ne moom lay proposer mhm. su fekkente ne dafa am ay poursuites yu nga xamante ne c'est mhm. loolu day fekk structure bi wala responsable bi ñu dénk structure bi def ay délits yu nga xamante ne loolu ministère de la justice day obligé euh, cour des comptes day obligé saisir ministère de la justice bu boobaa ñu def seen liggéey beneen cas bi mooy bu fekkente ne erreur de gestion am na parce que nag kenn matul mhm. kenn mënula ne tey jii nii def naa une gestion à cent pour cent parfaite mhm. erreur de gestion lan la mais nit mën nga def ay erreurs yi nga xamante ne du xaalis boo luubal mais à travers la gestion par exemple TVA boo war a génnee nga yokk ko ci. d'accord ñu ne la da nga am ay dépassement. voilà léegi monsieur le maire léegi lan moo ci indi lan moo ci indi commission. non damay ñëw dinaa ñëw ci commission bi bu fekkente ne loolu la dañ lay naan juste c'est des sanctions pécuniaires nga dem rembourser ma bëgg a wax ni ko aussi beneen affaire parce que loolu il faut mu leer Cour des ku ko dégg léegi sax sa fit day dem. alors que cour de comptes dafa am utilité bu mu amal administration. loolu kay du léegi. non non non non loolu kay cour de comptes kay ku ko dégg léegi ay ree def. cour ay ree ko dégg léegi ay ree la pas pas daf lay tiital aussi. madame la maire cour des comptes ku ko dégg léegi no dafa tul la tiitalatul la. gis nga cour des comptes. non tiitalatul kenn dafa am parce que xam nañ ni du mujj fenn. waaw <laughs> donc loolu mënul tiital kenn ci loolu. mais dama la bëgg a wax dégg ci un de la république bu ñu dem di ko contrôler mu dàq leen ci biti accuser leen de. waaw euh, de de corrompu. mais loolu kan la dinaa ñëw ci loolu loolu kan mën a tiitalee. dama la bëgg a wax cour des comptes. waaw njëriñ gu mu amal administration bi. cour des comptes day former ñun ñu ñëpp des fois dañuy jot ay courrier yoo xam ne on demande en nos comptables ñu ñëw renforcer seen capacité cour de comptes day encadrer day accompagner structures yi day joxe ay conseils ay recommandation ñu war leen ah bañ leen découragé. boo defee ay encouragé ñu war leen encouragé. boo defee ay erreur seen tutelle war leen encouragé ci seen liggéey. léegi su fekkente ne yow danga jàpp ne que euh, par exemple dafa am ay erreurs yi nga xam ne président da koo nëpp nëppal man gisuma lool président Macky ba mu ñëwee dispositif bu mu fi teg of nag yëkkatiwaat créé yi ak yeneen ak yeneen pour contrôle loolu gisaguma ko état xawma ma régime boo xam ne def na ko fi. léegi nag bu fekkente ne dafa am ñoo xam ne parce que ku nekk tamit tu as une responsabilité personnelle dans l'affaire bu fekkee ne dafa am ñoo xamante ne xëy nañ am na benn comportement boo xamante ne waruñ ko woon am ça ma en face avec toi d'accord ma ci mais li ma la mën a wax mooy encore une fois président Macky Sall couvrirul kenn il l'a toujours di et je pense qu'il est toujours constant dans ses propos. mais xam nga xam nga par exemple ci ci rapport yi daf ci bari ay recommandations. ouverture yoo xam ne dañu wax information judiciaire mais yan façon recommandation la bépp bu ci am information judiciaire mais xaaral ba xam ndax information judiciaire du ci am bu fekkente dañu ne par exemple ñii li ak lii am na ci na na na comptable bi ñëw remboursé comptable bi dina dem remboursé bu fekkente aussi dafa demande structure ñu ngeen ko encadrer accompagner waat comme ñu def ko mais le fait que ñu bëgg a ne que mal gouvernance nangam sangam je pense loolu aussi il faut ñu relativiser ko. mais li nga dégg ci rapport yi bu dul mal li nga si dégg. mais Pape wax naa la léegi nee naa la xëy na am na ñu def lu rëy. Mhm. am na ñu ñu tudd sax te amaana la ñu def ak nañ ko waxee sax demewul noonu parce que nee naa la gestion amul fu Cour des comptes di jaar ba ñu ne la cent pour cent am nga 10 sur 10. Mhm. loolu mënul nekk maintenant ki nga xamante ne nag la profane bi koy liir xamul les tenants et les aboutissants xamul le soubassement xamul texte yi xamul règlement xamul procédure mais mën na jàpp ne que xaalis bi dañ ko détourné alors que c'est pas de l'argent détourné moo tax ma ne la Cour des comptes approche bu mu am souvent di encadre structure di renforcer capacité yenni yenni yenni yenni agents yi loolu def ci baax mais de façon générale bu mu tax nit ñi am perception que tey jii dafa am ñoo xamante ni dañu luubal xaalis ñu protéger leen loolu amu fi président Macky protégé wul kañ la ko kii kan kan kañ la ñu publier kii bi du avant-hier euh, semaine passée. kañ lañ ko waroon publier moom teg na benn commission. kañ lañ ko waroon publier. kañ lañ ko waroon publier ñoom jox nañu explication yi tax ñu xaar ba trois ans soog ko publier man ci loolu laa mën a yem. Mhm. mais li ma jàpp mooy encore une fois euh, rapport Cour des comptes du tribunal. Mhm. rapport Cour des comptes du tribunal te mhm. mënul nekk tribunal. maintenant s'il y a des éléments yoo xam ne ci biir dafa war a tax tribunal dugg ci ministère de la justice dugg ci loolu aussi na yoon def liggéeyam. d'accord.